الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد mbokk yi jullit ñu ngi dénk suñu bopp ragal yàlla def ko dénk ci xutba bi weesu woon ñu ngi doon wax ci dëggu ak am soloom ñu bëgg a wéyal waxtaan bi ci maratibu sidq muy daraja yi dëggu am ak ay mandargaam daraja bi jiitu ci daraja yi dëggu mooy dëggu ci yéene ba jaam bi yéene nekk lu sell amul dara lu koy puus ci muy yëngutu wala muy dal lu dul wut ngërëmul suñu borom tabaraka wa taala na ci dëggu ci yéene nga dëggu ci sag dogu ci mbir moo xam ne mën nga ko ndax yéene mën naa dëggu lool waaye ak dogu wayat nit ki mën nañ koo gis mu dugg ci mbir aku tàngoor aku cawarte waaye su demee ba ca biir mbir ma ba dajeeg jafe-jafe yi te nekk bu fekkente ne ak dogoom dëgërul woon da ngay daal gis mu yox ak commencé dellu gannaaw moo tax jaam lu muy def rek dañ dee war a dimbandikoo suñu borom tabaraka wa taala wata wa iyyaka nasta'in suñu borom tabaraka wa taala lañ war di dimbandikoo ci mbir mépp mu ñu ñaareel ba ci daraje dëggu dëggu ci ay wax dëggu ci wax nag ñu bari ci la ñuy yamale dëggu bu ñu nee diw ku dëggu la rek mooy day wax katu dëgg la wax bañ bañ nañ ko sax ba wax katu dëgg la la ñuy wax te loolu ñuy waxee wax katu dëgg la loolu la ñu waroon a waxee def katu dëgg la itam kenn amul sikki sàkka ne daraja boobu daraja bu kawe la muy dëggu ci say wax am na ay melokaan yu ñu koy xamee bokk na ci dëggu ci ni ngay toxale ay xibaar ab jullit wër sa toxal lu dul xibaar bu dëggu mën a toxal xibaar bu dëggu nag dana la laaj ngay vérifier di def sa sabut mooy di wóorliku li ngay wax rawatina ci jamono jii nga xam ne tas xibaar dafa nekk wutukaayu alal tas xibaar lañ ci daan jublu mooy jottali nit ñi xibaar bu leen di jariñ waaye bu fekkee nit ki da cay jublu léegi moom am xaalis fu mu mën a jaar ba am xibaar rek bu koy may xaalis dana ko am te xibaar ba nu mu mën a yéemee nu mu mën a kiimaane noonaa ko ci gënal loolu moo tax kon jullit buy dund ci jamono ju mel noonu war nay vérifier bu baax a baax a baax xibaar ya nga moom lay tuxal ak di ko ak di ko gëm loolu nag dana laaj nit ki mu wattandiku ko lépp loo xam ne ay njort la ak loo xam ne ay demalee ci fekkele la ñu koy wax ay rumeur yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne na ngeen wattandiku njort ndax njortukat moo gën a ñàkk a wax dëgg ci waxtaan bi dellu wax ne doy na ci nit ki bàkkaar muy ñett li lépp lu mu dégg ne daf koy def lépp loo dégg natt li ko rek loolu doy na ci bàkkaar ñaareel bu bokk na ci berokaan yi dëggu ci ay wax nga dëggu ci sa dig li ngay digee ndax dig li ci gën a bari wax lay doon mën naa doon randi dig boo xam ne yaa ngi ko jox ni ci barab ngeen war a daje wala ci jamono joo xam ne ci ngeen war a daje wala kan ko war a jox la ngeen teg wala loo ko war a jox wala ab sëy bu ngeen war a amal moo xam ku góor ka diggante ku jigéen ka wala ku jigéen ka diggante ku góor ka wala seeni kilifa wala mbir mu mën a doon moo xam ne nit dana ko dig mbokkam bu fekkente ne dëggu na ca mbir yooya kooku danañ ko jàppe ab dëggukat waaye su fekkee ma ngi koy wuutal rendez-vous ba wala dig ba mu joxee santé na ko ci lu dul wenn lay wu sare a nangu kooku kat dañ ko jàppe wax koo xam ne wax waxkatu lu dul dëgg la moo tax suñu borom tabaraka wa taala yonente bi bi mu leen am na ci koo xam ne mi ngi ko taggee ne moom day ku dëggu ci ab digam la rendez bu mu la jox wala dig bu mu la jox lu dëggu la mu ne waskur fil kitaabi ismail innahu kaana sadiqa al wa'd wa kaana rasulan nabiyya bokk na ca melokaan yi nga xam ne dëggu ci ay wax itam matal ay engagement ak i kóllëre yoo xam ne dañ koo jël borom bi tabaraka wa taala ne yéen ñi gëm yàlla dee leen matal seen accord muy seen juboo yi nga xam ne dañ koo jubóog nit engagement yoo xam ne dañ koo jël bokk na ci matal kóllëre itam nag di denc ci secret yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne ñeent ngi nii ku mu nekk ci yow naa fekk bu ma tëkk nga ku ci am benn nag jàngoroy naa fekk commencé na laa dugg benn ba mu ne su waxee wax lu amut su diggee dana wor su kóllërantee jël engagement dana fecc kóllëre googa su fekkente ne xoloo naa nit wax ji dana ci dugal waxi kàccoor dana ko xas dana ko jéem a yàq ab dara mu ne melokaan yooyu ku mu nekk ci yow naa fekk bu ma sëkk nga ko ci am benn am nga ci koy naa fekk bokk na ci dara ji dëggu itam dëggu ci ay jëf dëggu ci ay jëf nag mooy nit ki jihaat ak bakkanam ba li muy feejal ci bitti dëppoog li nekk ci biir jëti bittiyam bañ a weer wane melokaan buñ koy fooge boo xam ne nekkul ci biiram masalan koo xam ne ci bitti mi ngi wane ak ragal yàllaa ko xoroxlu ci ay waxinam ak ci jëfinam te fekk na loola nekkul ci biir xolam wala muy wane naqarlu bu mu am ci diine ci di ko nit ñi ñàkk a jëfee ak fiir bu mu fiir ci yi yàlla araamal ci nit ñi di ko def mu di ko wane ci kaw te fekk na loolu nekkul la koy waral mooy dangay ngay jamoo tam di ko jëf wala moom ci boppam sax mu di ko jëf melokaan yi ñu ko mën a misaale yu bari la lool bokk na di wax saw làmmiñ loo xam ne nekkul ci sa xol loolu nag tekkiwul ne kon nit ki li feeg biiram baaxagul bu mu am dara lu muy digle ci lu baax wala lu muy tere ci lu bon déedéet lay digle lu baax di tere lu bon di jéem a yor melokaan bu baax waaye di jéem a jihaat ak bakkanam ba li ko nit ñi foogee ci bitti fekk lu ko ëpp sax moo moo tax yëpp yi dugg lu xaalis ne koo xam ne sa biir ak sa biti dañoo yem maanaa li ngay wane ci biti looloo ne ci biir ñu yem képp nee yow ne ko maandu ba nee koo xam ne nag li ci sa biir moo gën li ci biti kon de yow nee na looloo di mbaax koo xam ne nag dem na ba li ci biti moo gën li ci biir nee na lool loolu moo di ndëgg te loolu moo di kàccoo melokaan bi muy wane ci biti moo gën foofu li nekk ci biir kooku mooy ki nga xam ne moo dëng moo kàccoo kon ñett yooyu rek moo am benn ñu tolloo wala li ci biir xol bi gën liy feeñ ci biti wala liy feeñ ci biti gën gën di ci nekk ci biir xol jaam nag daa war a bëri bakkanam bañ ñu tolloo wala sax boog li ci biir gën bokk na ci dëggu itam dëggu ci tolluwaayu diine te mooy daraja di gën a kawe muy nga dëggu ci ni nga ragale yàlla dëggu ci ni nga yaakaare ci ñu borom tabaraka wa taala parce que wax ne yàlla nga yaakaar ci wàllu wërsëg ba noppi dem di def riba wala ngay kar wala ngay dem ci jibaar ñu lay defaral luñ maye wërsëg luñ de la day maye wërsëg te sax da koy xañee ndax yaa cee ñàkkaat sa wërsëg loola bu boobaa du dëkku ci sa digganteeg sa borom tabaraka wa taala kon melokaan yooyu nga xam ne jaam bi dafay woote woo dafa am ay jubluwaay yoo xam ne daa war a faxe fam nekk ci biiram moo tax nga gis suñu borom tabaraka wa taala buy melal ñi yàlla aay yu ci bari mi koy daanale ulaika humu saadiquun innama almuminuuna alladina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartaabu nga xam ne dañoo gëm yàlla ak ko yonentam te amuñu nag dara lu ñuy sikki ba aaya bay jeex mu ne ñooñu day ñooy ñi wax dëgg ci seen ngëm ci aaya bi laysal birra ba aaya bay jeex mu ne ulaika alladina sadaqu ñi yor melokaan yii day mën a muñ feebar bu leen dalee ñu muñ bu leenum ñàkk dalee ñu muñ bu ne ñu leen tumuraankeelee ñu muñ ñooñu ñoo wax dëgg wassaabirina fi lbasai waddarai wa xiina albas ulaika alladina sadaqu wa ulaika humul muttaqun bokk na ci mandarga yi nga xam ne nag danañ ko xamee dëggum nit yi mooy ab xolam dafay dal ndax koo xam ne da nga dëgg ci sa mboolemi mbir yi feeñ yi ak yi nëbb yi loolu day def ak dal ci sa biir xol day dàq lépp loo xam ne sikki sakk la lépp loo xam ne jaaxle la te jaaxle la koy faral di andi mooy mbir moo xam ne dafa leerul ci sa biir xol wala nga fas ko te bokku la la nga xam ne mooy dëgg moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon kam doon dénk ne ko lépp loo xam ne yaa ngi koy sikki sàkk rek bàyyi ko te li nga xam ne amul ci luy sikki sàkk mu ne ko dëggu kat ak dal lay andi ci ab xol waaye ñàkk a dëggu moom sikki sàkka lay andi ci xol bokk na ci mandarga yi ñuy xamee ne nit ki dëggu na ci diineem te itam ab xolam dal na mooy ubbiku boo xam ne xolam ubbi na ko ci lislaam mu sawar ci lislaam lool di ko déglu di ko jàng di jaamu yàlla di waajal alaxira kooku li muy tekki mooy xel mu dal mi ngi ci biir xolam li muy tekki mooy mandargam dëgg yi te mi ngi ci moom ndax borom bi tabaraka wa taala moo ne ku yàlla namu ci yow aw yiw dana ubbi sa dënn ci lislaam lislaam nga xawar ci lool ngëm yàlla neex la lool gënal la lépp lu dul ngëm yàlla waaye nag nee na koo xam ne dafa namm ci moom mu sànku nee na kooku day day def ab dënnam mu xat lool kooku déglu dara lu jëm ci diine waaraatam diine wala jàngale diine wala nitu diine sax loolu dafa koy xatal bu booba bokk na ci mandarga yi dëggu itam xol bu mucc koo xam ne dafa dëggu ab xolam day mucc ci lépp loo xam ne kiñaan la lépp loo xam ne soxar la jëmale ko ci jullit ñi ab xolam da cay mucc lay doon melokaanam mooy laa biir jullit ñi foofu kaw melokaan woowu nag bu nekkee ci biir xol day am lu koy feeñal ci bitti mooy dañ koy gis muy wattandiku tooñ day wattandiku dëngte day wattandiku deru nit ñi bi ba a yàq deru nit ñi day xër lool ci ak maandu day def itam lu man ci faj aajo jullit ñi xett li ñi nga xam ne ñoo tële su ñu amee naqar mu bokk kook ñoom suñu amee mbégte mu bokk koog ñoom jikko yooyu nga xam ne li koy génne mooy xol bu mucc am na beneen melokaan bu muy jur mooy ku mel noonu nit ñi dañ koy bëgg day nekk koo xam ne nit ñi dañ koy ñeme dañ koy miin su ko defee moom it mu miin leen su ko defee ñu sopp ko ndax toroxlu gi ñuy toroxlu ci seen wet loolu mooy dëggal yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ne ku gën yàlla day day nekk ku ñu miin waaye mu ne koo xam ne kenn mënu laa miin doo miin kenn maanaam da ngaa tëju doo jaxasoo kenn nee na kooku de lu baax nekkul ci moom ab jullit dafa war a nekk ku ubbiku koo xam ne jullit bu ko gisee da yomb nga dugganteeg moom daal koy miin mu dal lay miin loolu ci melokaanu jullit la bokk bokk na ci melokaanu dëggu itam nag sàmm waxtu ndax ci dëggu ci ngëmam yàllaam dëgg dëgg dëgg dëgg te xam na ne capitalam bi mu am man ci liggéey mooy temps bi ko yàlla may fii ci àdduna moo tax waxtoom da ciy du ko yàq waaye bi yàqal keneen itam waxtoom waxtoom toujours mi ngi koy def ci lu koy mën a jariñ àllaaxira ndax day jàpp ne dundam bii mu fi am yépp daanaka benn waxtu lay tolloo jàpp ne adduna yépp buñ ko xoolee dafa mel ne benn paaru garab boo xam ne da nga caa yendu war a gont daal di bàyyi ko loolu mooy tax mu daal di gaaw jëm ci jëf yu baax yi ci bu amee jot wér gi mu am itam mu profité ci def lu baax ndaw gi mu toll itam mu profité ci jaamu suñu borom tabaraka wa taala sori lépp loo xam ne luy yàq ak dundam la wala lépp loo xam ne luy sànq waxtoom la bokk na ci mandarga yi dëggu tam dëggu ci taggu nit ñi waaye sax daf koy sit tey loola la koy la cay topp mooy dëggu ci li nit ñi yor doy loolu la borom bi tabaraka wa taala mandarga boobu mandargam dëggu la ki nga xam ne jëf yi muy jëf day bañ doomu aadama yi di ko ca gis ba di ko ca tagg di ko ca naw loolu la koy waral mooy pas-pas bu wér ak tawxid boo xam ne bu ma tëgg la ci melo melokaan boobu ci la imaam ñu xayim waxe ne nee na sellal ci ab xol am nag bëgg aw tagg ak ñu lay jay ak xemmem ci li nit ñi yor nee na mënuñoo daje lu mooy ni ndox ak safara bi daje xam ngeen ne ndox ak safara bu ñu dajee lekk kenn jóg ko benn ndox ma dana daal di fay safara wa wala safara wa dina ñéeral ndox ma su fekkente ne daf ko tëj ñaar yooyu nee na mënuñoo daje kon sellal ci ab xol su àndeeg bëgg daraja ak bëggu tagg léegi bëgg tàgg nga dara daal di yóbbu tàllal juróomeel bi nëbbu ay jëf yu yiw te bañ a feeñ bañ a fés ku dëggu digganteem ak boroomam tabaraka wa taala dëggu digganteem ak boppam day xéeru lool ci nëbbu ay jëfam yu baax dafay bañ lool doomu adama yi di ko di ko yëg ndax mu mën a sori ngistal mën a sori njëgtal mën a sori jirikal mooy wane loo xam ne nekkul ci yow jaam bi lu mu gën a dëggu digganteem ak boroomam xeer ci nëbbu ay jëfam yi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala rek la koy wan yàlla mi nga xam ne moom mi ngi dégg mi ngi gis te mooy ki nga xam ne itam mooy fay benn bu baax boo def mu fayal la ko fukk kooku rek moo jar a ay jëf juróom beneen ba dafay yëg ak gàttañ lu ci wàllu boppam du naw boppam fu mu toll ma ngay critiquer boppam di ko jéem a defaraat lu gën a bari li muy critiquer nit ñi xam ngeen ne ñu gën a bari nag nit ñi la ñuy critiquer ñoom la ñuy xool seeni sikk diw day waroon def nangam diw day nangam nangam fàtte moom boppam te xamoo ne loo xam ci nit li nga xam ci sa bopp ko ëpp bu fekkee da ngay jubbantee ka laa biire rek sa bopp ci nga war a tàmbalee ndax li nga ci xam moom daf laa leer nañ te xam nga ko mu bari lool am na yeneen doomu aadama yi li nga xam ci ñoom lu léew la te la ca bari sax da koo gën a jox waaye sax dara wóoru la ci kon nag ku dëggu da ngay sa mbiri bopp dala ñuy doy ba doo tal mbiri kenn ndax li tax ci mbiri adduna yi tëroo xëy tool kenn tëroo xëy biroog kenn kenn du xëy na teg xaaral ma xëyal la sa tool tey ma wala ma xëyal la boo ko waxee mu sama liggéey doy na ma sëkk noonu la sa liggéey doyee ba doo dem nit ñi di leen liggéeyal noonu la say ayib waroon a doyee ba doo nekk ci ayib yi nit ñi di ko seet ak a wax ndax doo xëyal kenn soona ku ne la woon kaa jaayal ma sama bitig yenn fi féegi weer nga nga di ko aw nga amee wu jot ba daloo mbiri nit ñi noonu nga war a ñàkk jot itam ba moo tax bokk na te itam màndargay dëggu ak samay yus maanaam ak jullit dafa war a wàññi xam ngeen ne léegi jamono ji yëfar yi li ñu bëgg mooy jullit ñi jaxasoo ci biir nit ñi ba kenn diitu leen xam ne waddoo law takfuruuna kama kafaru fa takoonuna sawa maanaam jullit bañ a tee am identification bu leer boo xam ne boo ko gisee xam ju xam ne jullit la ci ay waxam ak ci jëfam loolu ku am identification boobu rek kooku la ñuy tuddi terroriste ñu ne kooku bandi la ku jubandi la ndax lan moo tax muy yor mandarga bu koy wóotaleeg ñeneen ñi te nag jullit loolu dafa war a doon mandarga bu fés ci moom ab jullit dafa war a dëkku bu nit ñi seeni pas moom pas-pasam bu nit ñi bàyyee sunna nekk ci ay bidaa moom mu dëpp ci sunna xam nga foo nekkee ci sunna jaxasoog ñu nekk ci ay bidaa da nga daal di wuuteeg ñoom ci bu nit ñi di tasaaree wax lu amut moom mu dëggu ci ngëm yàlla bu nit ñi nee fekkee ay naa set moom mu jéem a nekk ci dëgg bu nit ñi dee foo ko bàyyi jikko yu rafet yépp moom mu jubli ci boroomam tabaraka wa taala xam ngeen ne ki mel noonu fokk mu ràññi ko fokk mu wuuteeg ñu melul ne loolu itam bokk na ci dëggu ci ngëm yàlla waaye yor melokaan woo xam ne mbooloo moo dugg daal di mel nañu mel li ñuy wax jikkoy kàkk sax loolu ku ne mel mooy dëkk woo ci sa ngëm jàmm ay intérêt àdduna rek ngay wut te am na ci ñuy tuddoo jullit ñoo xam ne mbooloo mu ñu dem rek la ñu jàppe diine melokaan bu mel noonu lay daal yor wane na ci ñoom la bokk ngir bëgg xay na am daraja foofu wala bëgg fa am jëf bokk na ci mandarga yi dëggu itam nangu dëgg fu dëgg feeñ nga nangu doo xool ba xam dëgg gi ci gone la jóge wala ci mag la jóge wala ci soppe la jóge wala ci noonu la jóge waaye saa bu dalil muy tegtal bu leer nañu feeñee jullit bi daf koy daal di jël daf di koy daal di jëf melokaan boobu moo koy dàqal farfarloo ku mel noonu du farfarloo di farfarloo ci ay xalaat wala muy fay farloo ci ay kuréel ak i mbooloo wala muy farfarloo ci supporter ay nit ak i kuréel loolu daf koy daal di sori loolu dal koy andil nag ak mbëggeel ak cofeel ci diggante jullit ñëpp andi ak daje daq ak sàqalikoo dàq ak wuute comme ni nga xamee ne nag bu dëgg nag ak moy ci day laaj yi sax na nga di ci woote dëgg ku ci mooy watawaasaw bil xaq la borom bi wax waaye watawaasaw bi sabr dëgg koo xam ne mooy nga ci da nga koy dénkanteeg nit yi waaye itam nag di muñ itam coono ba nga xam ne mooy la nga xam ne moo la cay jóge ki nga xam ne dafa dëgg foo ko gis dafay leeral dëgg du ca ragal mukk yegg ku koy yegg du ca ragal mukk ci dagg ku koy dagg lam cay seet mooy digganteem ak boromam tabaraka wa taala laa yujaadil wala yudaahi du ca maslaa du ca ragalante gannaaw doonte dëgg gi dafa dal ci kawam yaa ayyuha alladina amanu كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين da ngay dégg léeg-léeg wolof naan diw moom mëtuma ci seere jullit yi ñëpp la war a mën a mat seere parce que seede bu dee seede mooy wax la nga xam rek muy dëgg borom bi ne wa ida qultum faadilu walaw kaana saa qurba wa bi ahdillahi awfu suñ la laajee ci mbir mi maandul wax la am donte ci sa bàyyi la dal wala sa way juru jigéen wala ci sa bopp sax la dal walaw ala anfusikum loolu mooy ku dëggu dëgg dëgg dëgg waaye bu la nit tegee ci wàllu intérêt wala wàllu askan nga ne laaj leen keneen diw mënuma ci seet li muy teg kon mooy da ngaa seedewul ngir yàlla boo doon seede ngir yàlla da nga mag ci ñëpp seet moo tax mu ne koonoo qawwaamina bil qist suhadaa lillah laysa li ahad suhadaa lillah boo dee seede seedeel ngir yàlla boo xasee bay seede xoolatoo ki ngay seedeel mais suñu borom tabaraka wa taala nga xool yàlla yàlla boole ci dëggukat yi boole ñu ci ñi nga xam ne lim ne yaa ayyuha alladina amanu taqullaha wa kunu maa sadiqin boole ñu ci yawma yanfau sadiqina sidquhum ñi nga xam ne nee na ci lu dëgg dana leen jënd mu yomal xaar yàlla ci yàlla boole wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain